aji salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk xaritu internet yi bëgg Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance rawatina émission bi nga xamante ne moom mooy maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen kontaane bu baax a baax a baax a baax maa ne macha allah ah, boo la ah, ñu koy wax Boy Milo Boy Milo nag Tëngéej la dëkk ndaanaan la jeune talent la boo xamante ne macha allah mu ngi def lu bu baax a baax li ma wax Boy Milo maa ngi lay nuyu di la ziar yaay dañoo moomoo maa ngi lay fay bu baax a baax di lay nuyu aussi di nuyu waa kër gi muy Kër Ndaanaan la chaine de l'élégance uh-huh. di nuyu sama pap bu baax a baax di nuyu sama yaay di nuyu sama ménagère muy Abu Alka di nuyu Big moo waa néeg bi di nuyu téléspectateur ak téléspectatrices yi maa ngi nuyu Sénégal warngal képp yaay Aïcha ma ngi noonu kooku mooy Boy Milo Aïcha Boy Milo suma première question mooy euh, pourquoi Boy Milo yee booy Milo c'est que dafa nekk benn booy boo xam ne en bu tàng moo tax mu xaw a lakkal ñu bëree bëri. Mm-hmm. un homme intègre et un homme respecté aussi mooy loolu. Mm. mais nit ñi wax da nga tàng wala yaa xamante ne bopp kan da tàng. mais lu la fin si la découvrir que ni en maa ngi si quoi. mais est-ce que yow d'accord tàng yow li gars yi di wax. waaw amaana ñoom li ñuy wax mën na nekk comme si que mën na bañ nekk. Mm. yaa ngi comprendre. xam nga si àdduna lañ nekk te fii loo fi def xam nga loo fi defal aussi xam nga te noo mel aussi xam nañ noo melul xam nañ te am na ñoo xam ne buñ ne mm-hmm. Mm-hmm. da nga ko foowee da nga am ku dafa yàgg ànd ak ay artistes yoo xam ne rappeur lañ mm-hmm. am na koo xam ne sax o moins ñu renfénandoo ak moom muy LDM Dimxa muy frère bu baax a baax a baax moom laa yàgg àndal muy teg lu bëri doole moom rappeur la maa moom ñu daan ànd guddeeg bëccëg bu daan teg damay ñëw toog instrumental yi may ñëw di dóor ba benn jour mu dem génn ma teg sama texte dóor si instrumental mu ñëw ma ne ko dóor naa de mënu ma tegal ma xool ma teg après mënu ma est ce que yaa ko dóor ma ne ko si man la mu ne booy kon da ngay parce que lii am na ñoo xam ne yàgg nañ si game bi mënuñu bind baax di toll nii te lu ko bind après commencé di dóor mooy loolu ay ci sans plus tarder balaa ñu sore est di ma mën a may loolu noonu nga xam ne moom nga bindoon ci période boobu noonu lan ma ciy may tey waaw waaw dama ñëw ne bindukaay mën a ñàkk sama xel du ma taay foog nga jaay sa daal hip rek la yenn kaay wala day nekk si kaw comme drapeau bi pale mënuñu dawal game bi ndax foofu ñu seen tànqale damay coob big bi naan maaro biram yaasin deenaa bu yàgg bu doon lidi si ma joxe ange malaaka laa si bii géem ruuxee tax ma génn woote nga sabar jotoo kenn mën nga sempi sa dënd yow na musul nekk benn bàyyi ma xar fi ñaar ay ci Boy Milo 2019 ba léegi la commencé def musique lan ak lan la teg loo xamante ne nii tey ji mun nañ ko xam ne lii Boy Milo moo ko par exemple ay mixtape wala ay son yee yàggul dara parce que doon naa def benn conférence de presse avant-hier muy samedi le 4. Euh, mhm. doon naa dóor benn génn naa benn ii bi dóob boo xam ne ni gars yi dañ ko doon def ay ventes ciblées si clé yi la nekk. Mhm. mais actuellement ni yàlla def na loo xam ne ni en fait clé yi doon nañ ko ba mu jeex. Mhm. actuellement dañu bëgg a bàyyi samedi ñu soog ko livré gars yi YouTube bi mooy loolu. kon daal su ma déggee deux mille dix ba deux mille vingt deux si ngay góor soo a génne benn loolu nga ci loxo gars yi. mais daan nga génne par exemple ay ay freestyle wala genre wala soit non dañ nekkoon si ruxu di joom nag parce que waaw dañ nekkoon si parce que 2019 ba léegi génn naa trois sons boo xam ne ni en fait overdose la ak yenn yoo xam ne ñaari featuring la mhm. benn bi Max Zymo benn bi Max Sida Boy yee mhm. si lañ nekk di joob après si lañ joobee pendant un an si benn EP bi mooy bi génn barki mhm. moom lañ génn noonu mooy loolu mais EP bi aussi mën nañ ci xaar ay freestyle yoo xamante yoo xam ne yéen ko def mais EP bi moo ngi tudd déglu dégg déglu dégg déglu dégg tudd kon yow war na mën a am lépp parce boo dégloo rek di nga dégg di nga dégg mais am na dafa mel ni tàngoor dama gis da ngay daw laax parce que boo amee trois sons mm-hmm. deux sa tàngaay dafa des quoi moo tax nga daw laax ci ginnaaw gars yi am na ñoo xam ne ñu ngi si game bi duñu la mën a yëg sax ba invité pour seen mm-hmm. yaa ngi dégg tey cela veut dire que am naa lu ma prouvé ba ñoom bëgg def ak man featuring donc damay ñëw rek balancé sama bopp après bu jeexee jeex na quoi d'ailleurs maa ngi ñoom ñoo bokk dëkk donc war naa leen ko mën yombal et c'est mooy loolu. mais balaa ñu ñëw ci EP comme yàggul génn. Mhm. Euh, ci carrière Boy Milo par exemple tey depuis 2019 da nga continuer sa jàng wala da bàyyi jàng bi aussi parce que gis nañu ne Boy Milo jeune la quoi. yeah Boy Milo quitté na school 2020. 2020 parce que dama dugg si game bi waaw daan boot saak chaque jour di dugg géej di dóor performé maa ngi classe fekk na yow maa ngi si taxi di dóor di dóor ba benn moment laa xam ne man li may def ni bëgguma ko tam maa ngi tardé sama boob père moo ngi fay paiement di fay moi pourquoi pas ma wax fi nekk si laa nekk père man lii ba en fait yëguma sama bopp il fallait que je quitte quoi mooy loolu noonu après si laa quitté di dóor mooy loolu ba tey jii nii yàlla mooy def li nga xam ne nii moo gën quoi kon yow daa xooloo ñu naan musique mën na ànd ak étude aussi mënoo gëmoo loolu. pourquoi pas. Hmm. Euh, étude mën na ànd ak lépp gars yi pour ñi bëgg a bàyyi ak ñi bàyyi laa xamal man dem hmm. bu doon tey du ma bàyyi sama school. Hmm. parce que regretté naa ko bu baax a baax a parce que am na ñoo xam ne en fait dañoo wax boo yow lu tax doo ñëw jàngi si ak ni nga mel si lii bàyyi lii lii. mais terewul yàlla ki nga tubaab moo ne nul ne peut fuir son propre destin. tey amaana dama waroon génn school génn na. après mooy loolu quoi. lan ngay wax si tamit artistes yi nga xamante ne à chaque fois wala ndaanaan yi nekk biir tënkee dañuy jooy ku leen jàppale est-ce que tey jii bokk nga si ñi nga xamante ne tey amuñu ku leen jàppale fii au Rio non même pas que lu yomb lu yomb jégul benn góor gars yi ñun ay xale lañ nañ ko galéral suñu bopp bu ko defee bu ëllëgee suñu nettali mu mën a neex gars bu kenn xaar si kenn gis nga loo mën a defal sa bopp defal ko bul xaar kenn gis nga gars yi fii bu ñu la bëggee jàppale dañ la jàppale bu leen dem si kenn di ko yaa ma a xam di ko si booru gars parce que fii lu la waaye defal ëllëg da la koy waxal te ñun ay porteur de voix lañ dañoo war a dénoncer dañoo war a sensibiliser gars kon nañ sax si job bi ñu xaar après kuñ ci fekkee ñu jël mooy la noonu. EP bi ñaata son la 6. EP bi 6 son la 6 son la. léegi tey lan nga may wax ci nattu par exemple ñu gis na par exemple tey nattu euh, dafa thématique quoi nattu. Mm-hmm. lan nga ma wax ci nattu pourquoi nga choisir mot boobu noonu tuddee ko son bi aussi. waaw parce que nattu nattu la rek parce que tey dañuy dañuy ñàkk yaay ñuy teel a ñàkk papa ñuy teel ñàkk époux ñuy teel ñàkk épouse ñi xam ne dañuy manqué ay cër yoo xam ne amaana buñ ko amoon dinañ mën a def te dañuy bëgg a def duñ mën a def moo tax ma ne pourquoi pas ma ñëw nekk seen place genre xaw a dóor affaire xam ne ñoo ngi leen bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoom ñi nga xam ne bëgg nañ def te mënuñ def c'est ça ay ci loo may may ci nattu ak suñu mbokk internet du Condamné TV la chaîne de l'élégance ñëw naa laaga du wees waaye du teel dama laaj bébé Modou mbokk yi daw ba dugg si kante génnuñ sama gaañu fi àdduna lu fi waay reen si loxoom rek lay nàcc métit bu tar la ñuy fowee ñu soppi sàmba bàcc a damben bu ma xeeb yàlla bul gis na lépp tànk yi tawoo dox depuis enfant natu la dum ko sip bu ma jullee maa ngi ñaan got une minute yu ma gis kanamu yaay ak basu baay umpa gi daf ma tiis Samba Ala mooy lan exactement ba tey dafa thématique dafa mel da laal dëgg dëgg dundu sénégalais waaw waaw Seydou boo xoolee man avant may dugg si game bi. si la yàgg contre affaire de Samba Ala. parce que si këru famille ngay dëkk da sib ni mu demee ak entourage bi ni mu demee parce que du ñàkk si dëkk quoi aussi. nga gis ñoo xam ne ni dañuy bàyyi seen jabar dem di dundal ñi nga xam ne ñoo ngi si biti bu ñu dugg seen kër dañuy ñàngal a mu a a mooy loolu noonu ak ci sàmba alaar ma ciy may ci sàmba alaar bi <laughs> may ma sàmm alaar àll bi lay gën non bàyyi noonu affaire la quoi ah, parce que yaa ma gën a kon baax na léegi ñu avancé est-ce que tey Boy Milo en tant que dëkk Rio malgré yàggul ci game bi mais dañ ko xam quoi à chaque fois ñun animateur dañuy wax ne Boy Milo dafa tàng dafa tàng dafa mën aussi est-ce que mës nga pressé ci concert boo xamante ne show bu mag la fii au niveau de Tëngéej waaw waaw <clears throat> euh, comment dirais-je passé naa aussi le 24 décembre Grand Théâtre festival boo xam ne Sénégal yi moom la ñuy coow muy Teuw Plac Geng Geng may siyaaraale Elzo Jamdong muy grand bu baax a baax a baax may siyaaraale de passage moom ak grand Abou ak Gas ñoom ñoo ngi jàpp si combat bu baax a baax ak Serifou Diop Sabrins ñoom aussi ñoo ngi siy jàpp bu baax. Mm-hmm. mais dañu gis ne tamit musique dafa xaw a nooy dafa xaw a euh, dafa xaw a maanaam noonu laa ko mën a tuddee comm mbal comme comme pas mbalax mais <coughs> mu nekk son bu carton aussi Salimata yeah waaw. c'est que xam quoi mbëggeel bi. non attends non Salim Wade vieux grand frère la nag. Uh-huh.

nga dem fee gis ko gis ko mais Salimata mu doo ko dëbb ndax war na àdduna di ma ci may xanaa boobu moom war na àdduna waaw waaw def na tour du monde li moom Salimata bi moom wax dëgg yàlla waaw pourquoi pas parce que ñëw naa ni dum la ma sa bàyyi rek nga ma tàmm lool di dégg loo bu amul sincère jarul nga fay séntu dégg mbëggeel bi fu ne lay jógee tax ñemewu ma la xool dam la bëggoon te yàlla tax mais pas affaire d'amour ses copines man la ñu tànn man ma tàmmul la yow ñu jaar ci suuf di yàq sa der ni amatoo ndaw ma gumba taxlu ndax mbëggeel la may conditionné xel bi ne ma bul ko gëm mais bàyyi si xel on sait li tax ma dof si yow war na ma du kenn yaa ko joob sama xol yaa fi ne yaa may bégloo yaa ne otoog fu ne toog naa fa di la tagg baatu yaa fi gën ndeke boobu yaa ngi seet sama xol pour teg laa doon doxantu ba jub yoonu gàlleem si laa fëggee porte gàlleem moo ubbi ma def ko wine naka la waa ji génnee si néeg di teg man ma cons ko mu xamal ma ni sa lob la yàgg na yëg bi jekk bett nga ma yow nekkul li nga ma waxoon lu ne def naa ko ngir yow sa jëf yi daf ma jëlee kaw c'est ça ayca booy ba tey li ma la waxoon sànq rek sa hmm. musique cest par rapport ak hardcore bu jëkk ba wala yow moom li mu teew sa bopp quoi exactement non man nag à vrai dire man musique laay def. musique ngay def waaw. bu hip hop doxee ma dem hip hop. bu mbalax doxee ma dem mbalax. parce que dama nekk pour bégal Sénégalais yi defuma pour man defuma pour yow dama def pour ñëpp. kon pare nga pour defar featuring mbalax maan yi. yeah pourquoi pas pourquoi pas ñoo ngi si yoon boobu ñoo ngi ñëw incha allah xam nga rek. yaa ma gën a xam sa link ak ñi nga maaseel aussi sa relation ñi nga maaseel génération parce que a yëg moo koy nekk ak li yàlla tey amaana man ni ma mel bay yéeg benn succès bi am na koo xam ne ëpp na ma grade foofu tey wul loolu noonu donc yàlla mooy def li nga xam ne en fait lépp si niveau la rek ñu xamal gars yi que ni ak loo mënti mel loolu nguuru mu gisee musique gu dox na démb ak tey wala ba tey dafa arrière non musique gu tëngeej actuellement ni dox bu baax a baax parce grand yi bu njëkkoon jubóowuñu woon ak booy mhm. mais actuellement ni grand yi ñoo ngi ñëw di def lu nice booy dañuy xewle woo grand yi grand yi ñëw presté grand yi xewle woo booy loolu moo fi manqué woon quoi en plus ak affaire du clashante bi mhm. mais actuellement moo ngi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax yes Milo am na référence am na idole non actuellement nii nag Milo waaw parce que man tey booy xool li tax ma dugg si hip hop dëgg dëgg dëgg dëgg en toute sincérité mhm. man lu ma doon déglu Canabasse dafa bëri trop trop trop sax trop sax mën naa lu bëri moo ma inspiré à ce que ma si game bi bu dul loolu daan naa du bi bu baax a baax may gis lu muy def lu nice kooku mm-hmm. père su ma koy shawda bu baax a baax moom tamit muy grand bu ñaax problème ak feno bébé aussi ak ñu nekk ñu baax daal su may lim du ma fi jóg ñoom ñëpp samay gaañ lañu e la ñuy tour mais balaa boobu aussi am na trois sons yu def euh, avant nga def EP bi lan nga may may ci trois yi soit <laughs> sa ndaanaan la ñu wax foog ñu xam eh. ki ñu invité ndax ndaanaan la wala ndax ndaanaan mi ngi nelaw ci yaramam si nekk Cheikh Omar nag en toute sincérité Cheikh xam nga benn problème dafa am man su ma nekkee si joo may mel mhm. ak su ma ñëwee ni may mel mais boo yeggee concert comme yow mel na yaa ngi concert yeah si non essence sama sans à l'aise ah maa ngi nekk daaj man mooy loolu de mhm. no stress mhm. yeah benn bi mu ngi tudd tendre par quatre ñëw naa ne maa duggaat seen garde gangu patin bon dulkan moo ne gém bi moo fi skaani waxalu jaadu mala carte sur table lu fi nëbb naa ko feñal sa taat ci gaz bi tracé dil bi xale bu ndaw moo le ping pong ñeme naa dee comme Malcolm classe ñëpp dégguloo benn tontu am ma fii am ma fee comme Assane Lopi foog dokkaa si gii ku toog suñu wax mën a def ba xalaat jël yoonu fiddi akaat cukki xam ngeen booy mi loo maa dikkaat pour lever seen danga may dolli wala ñu avancé. ci projet ça dépend de vous ah. moom mooy loolu waaw. ayca ah. dolli ma beneen ma xool. loolu nga gis yow waaw. maa duggaat seen garde gangu patin bon dulkat moo ne gém moo fi kaan yi waxalu jaadu mala kat su table lu fi nëbb naa ko feñal doo fi sa pare njambaat sa eh, bi sa dil bi xale bu ndaw ma le ping pong ñeme naa dee comme malcom classe ñëpp dégguloo benn tontu ama fi ama fee comme asal loppi foog dokaa si gii ku toog si min wax ma mu def waxalaat jël yoonu fiddi akaat cukki xam bi ngeen booy miloo mala maa dikkaat pour lever seen défi projet yi projet am na ay projet concert am na yeneen affaire yoo xam ne aussi bëgg na ko amal soit clip wala dara. instant yi parce que suñ clip Salimata bi disponible la fois passée mais instant bi ñoo ngi dëppmal benn showcase bu garaaw garaaw garaaw gars yi. Mhm. nañ ko xaar ah jàppaguñ date moom. mais actuellement bientôt rek mhm. gars nañ jàpp ni bientôt parce que ñu bëri ñoo ngi ñuy laaj. Mhm. loo leen di xaar pour teg affaire bi mais. tubaab moo ne chaque chose à son temps ñun li ñuy def yaakamte ñu si dara parce que lépp yaa ma gën a xam tepp tepp rek moo gën ñu rek mm-hmm. mooy loolu mais ah, parce que ñu war yëf lépp bientôt la mm-hmm. mënoo ñëw jàpp date sur moi parce que fii li image la après de gars dañ koy dem di ko kar léegi mm-hmm. boo fi waxee date gars après mën nañ dem foofu ne kii bàyyi nekk da li ñu toogoon émission moo tam xam nga rek sénégalais mooy loolu noonu mais Boy Milo aussi mës na teg show boppam boo xamante ne moo ko teg fii Tëngéej wala feneen quoi boo xam ne moo ko investir tegal ko boppam waaw actuellement nii Boy Milo projet yi ngay wax ni yëpp Boy Milo si yoo nekk lépp dañ ko liggéeyoon dañ ko nekk di ko liggéey di ko liggéey instant lépp sotti na ñoo ko tegee à côté lan moo des jàpp dat gars yi li ngeen di xaar yëpp yëpp yëpp yëpp bientôt rek mooy loolu acca <laughs> mu ngi noonu newoon naa leen jeune talent la nekk fii ci Tëngéej mais macha allah ndaanaan la boo xamante ne euh, je pense que xamagoo leen sax li nga xamante ne moom mooy euh, niveau nee naa leen fësal sa ndaanaan la ñu wax ci Kër Ndaanaan TV ku dul ndaanaan duñ la fi àndi euh, par exemple tey yow sa sa sa li nga xam mooy EP bi mën naa ne xaw na yàgg-yàgg boo xam ne léegi difficilement lax nga doon dund en tant que artiste parce que ku ne xam na ne aussi son nekkul lu yomb quoi financièrement tam aussi mm-hmm. <laughs> waaw c'est ba lii dinaa si sawar tontu trop parce que tey dañu nekk ay jeunes. Mhm. nekk si société boo xam ne ni li yàlla xam doy na. Mhm. saa boo amul da ngay da ngay da sonn trop trop mhm. billaahi te coono googu sax moo si baax parce que bu ëllëgee boo nettali sa jaajaan jaar mu mën a neex ñu ñu mën ci gis seen bopp. parce que amaana ñu bëree bëri yéen a leen di ñee te bu leen waxoon fi ñu jaar wala avant ñuy am. booy dafa metti trop en plus daan nañ toog bàyyi affaire yi di metti di tar gars yi nelaw ñu toog di job abu sama ménager mën na ma seede prince de la mën nañ ma seede. bàyyi loo teree nelaw lu tax doo nelaw booy lii nelawal bàyyi boo xëyee duraat ma leen booy non non dafa am ñu ma yónni yaakamti ma yaakaar ci man di teg lu bëri doole gars sas ma lu diis a diis a diis barki Serigne Touba mm, bi parce que ku fi jaar naa la ko laaj en tant que jeune porteur de voix aussi mm-hmm. jeunes yi ñu ngi ci mbedd bi di sànni ay xeer ànd ak politiciens yi dëkk bi booy seet daanaka lu si bëree bëri léegi xam nga ak dund beeg ñoom genre booy ko waaw Sénégal comme ni ma la ko waxee tey jii nii am na ñu bëree bëree bëri ñoo ngi wax mais terewul gars yi kenn déggu leen mm-hmm. parce que boo gisoon firi Sénégal bi gars yi wax nañ ba sonn terewul lu ñu bëgg a def lañ def ba affaire bi mu waree jeex la jeex mm-hmm. gars yi ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax a baax lépp lu waa di def na ko xam bu baax mm-hmm. parce que ëllëg moo tax parce que am na koo xam ne nii avant muy toog si nguur gi doon na xaañ ay xeer assemblée tey jii nii ñun bi ñu demee di xaañ moom moo taxawoon dañu sensibiliser te pourtant active yaa ngi si ñun ba léegi nii mm. moo tax lu waa ji def na ko xam bu baax baax baax boole ci yar ak teggin aussi parce que réewande lu mu la xañut mm. mënu la ko mooy loolu noonu mm. mais boo meloo kon mën nañ xaar mu bind benn son boo xamante ne pour pour pour société bi la comme da nga da nga da nga bëgg thématique aussi te comme ñun tamit ay fans lañ bëgg la di la déglu je pense que ñu taxawal mel ni député et pourquoi pas son boobu ngay wax noonu sax dóor nañ ko en mm-hmm. plus li jot a xew ni muy malfaiteurs yi gars yi di jàppaate di rayaate ñi di jàppa sàccaate lépp waroon na bokk si EP bi sax mais dañ ne mm-hmm. day ëpp quoi parce que xam nga mm-hmm. a baax a baax c'est ça kon doo ma ci may dara mooy loolu naa naa naa denc rek mooy loolu ak lan ngay terminer aussi ak lan ngay wax Kër Ndanane TV la chaîne de ak tamit loo xamante ne bëgg nga ko wax te laajuma la ko aussi yee mooy li nga wax rek waa Kër Ndanane TV moom la chaîne de l' élégance ñoo ngi def job bu nice nice nice surtout yow aussi yaa ngi sarme sa job bu baax a baax a baax a baax di la bu baax di remesier sa gars yi sa cameraman yi ñoom tamit borom bu baax lañ billaahi ñoo ngi def lu nice yéen a ngi sarme job parce que man dama koy suivre lu bëree bëree bëree bëri mm-hmm. billaahi di remercier sama ménager bu baax a baax a baax mm-hmm. di remercier Prince di remercier Big Mo waa ahlu bi gars yi di remercier sama pap bu baax a baax ak sama yaay di remercier Grand Mbaye Koña Seri Danigé parce que moo jaar ci habillement bi mooy loolu. Mm-hmm. di remercier waa Jokul waa Tëngéej waa Bargny waa Mbaaw Këmëf bàyyi ñu kenn gars di remercier sama waa staff bu baax a baax a baax déglu dëgg parce que ñoo ngi teg loxo Boy Milo bu baax a baax a baax di remercier waa Jokul Njuréen waa Jokul Njaayeen waa Jokul Xeer Jokul Médine Léona bàyyi ñu fenn mm-hmm. Boy Milo booy Milo Sénégal du Boy Milo Tëngéej yaa ma gën a xam ñu bëgg nañ dem à niveau de l' international parce que loolu la ñuy rêvé te gëm nañu dinañ ci mën a nekk te remercier grand abou bu baax a baax a baax a baax grand gas à travers ñoom ñoo tax ñu xam Elzo ñun ñu nekk di jàpp si combat bu baax a baax a baax surtout grand abou grand abou billaah yàlla kese laa koy bàyyil parce que moo ngi def si mën doy waar <laughs> mooy loolu ay jëm lan nga may may ñu terminé ko lu gàtt rek ma tëj ay jëm <laughs> xam lu la neex <laughs> da ngay rab de. doo attaque non Kër Ndanane TV la si pourquoi pas non damay mu. ma dara man DJ moom moo mag waa kër gi. Kër Ndanane dafa xaw a bëgg a yóbbu man saa su ma ñëwee dafa may sonal parce que man mooy loolu. man damay répété ba sonn. mais da nga tàng da nga tàng non naa c'est vrai mais damay répété guddee ba. mais booy lan fii suba ngoon may. ah loo nga gis te doo ma terminé dara benn affaire doole rek la sa fekk si lu verre amoo niveau ku dugg di nga romb sa peur man benn leer jox tel comme tendance defal bin bin ay xuur laay toj cristal mooy fer laa toog gàtt carrière mënoo jot sama sound dafa tekk si man xamoo li ma jot temps maa ngi Burkina ba seen game intègre caag rab bu fistal tee maa ngi nii vinaigre aja mu ngi noonu mu nekkoon Boy Milo di jeune rapport boo xamante mu ngi dëkk fii euh, di ko jaajëfal bu baax a baax ak abu manager am ki la sañcal mën na mais ma ki ma sañcal Boy Milo mën na ko mooy Ibou Deme borom VIP bi mu nekkoon en face la jaxaaloog moom aja kooku mooy VIP le VIP des VIP la ndaanaan dee ndaanaan kooku mooy euh, Ibou Deme ay ca 77 892 06 53 loolu mooy numéro Ibrahima mooy jaar mooy habillement bi ba Milo ki la solal mën na mais ki ma solal mën na <laughs> di leen jaajëfal bu baax a baax a baax Fodé ak Amina ci cadrage bi ah DJ mu ngi ci assistant maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax toute l'équipe Sanu ak Lamine di leen jaajëfal bu baax a baax direction Kër Ndaanaan TV yëpp maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax di wax ne ay ca gars mu nekkoon émission Feusseul sa Ndaanaan incha allahu rabbi yi ci beneen ndaanaan jaa ngeen jëf